jamono ji lépp loo xam ne ma ngi xeetoog politique wala lu jëm ci wàllum wax waxi politique sëriñ bi bëggatu ko dégg ci dëkk bu sell bi di bi nee li koy firndeel mooy Baay Faal yi la sëriñ bi woo ba ñu ñëw mu ne leen ndigal li nga xamante ni moom laa leen na sant mooy saytu leen ma dëkk bi sàmmal leen ma dëkk bi bu fi kenn defal lu jëm ci wàllum activité politique te bri de vote yi ko génne Touba yéen a kaay gi ñu fekk fa xalif général des li mu waroon a def dëkk bi def na ko sëriñ bi ñaan yi nga xam ne moom la waroon a ñaan ci dëkk bi ñaan na ko ñaan yi mu waroon a ñaan ci askan wi yeewoo Touba ñaan na ko ñaan yi mu waroon ñaan ci Sénégal ñaan na ko ñaan yi mu waroon a ñaan ci adduna bi maanaam ñaan na ko Serigne Mountakha Mbacké Bassirou nee na bu dee am na lenn loo xam ne naqari na ma lool ci Touba mooy politique bi nga xam ne moom la ñuy def ci Touba journal bi nee na Serigne Mountakha daan nay wax ne ñi nga xam ne ay acteur politique lañu bu ñu bëggee politique nañu génn Touba defee ko ci feneen Serigne Abdoulaye Mbacké tere woon na ko fii jamonoy Abdou Diouf Serigne Saliou Mbacké tere woon na lu jëm ci wàllum activité politique jamonoy maître Abdoulaye Wade yéen kay gi de la Soleil duñu xibaar naan ñu tere gi nga xam ne tere nañ ko lu jëm ci wàllum activité politique ak bureau de vote yi nga xam ne sëriñ bi neena na nañu ko génne Touba loole nag dina am ay njeexital maanaam ay conséquences yoo xam ne yu doy war lay doon Le Soleil moo xëy duñu ko xibaar L'Observateur xëy di ko dëggal nee na ay conséquences yu garaaw a garaaw ci processus électoral bi bu ñu jëlee bureau de génne ko Touba yéen kay gi di bés bi xëy duñu xibaar nañu bureau de vote yi nga xam ne moom la ñuy génne Touba loole nag ci boppam soo muy tuulee dina jara ñu def ab révision ci lu jëm ci wàllum liste électorale yi te nag ñi nga xam ne ñoon nan a participer dem voté ji ci élection yi ci Touba ba muy tuule dina feebul lool maanaam dina néewa ndax bureau de vote yi bu ñu ko génnee Touba dina bëri ñoo xam ne génn Touba dem voté ji dina nekk loo xam ne dina am ay jafe-jafe ci ñooma mbir mi nag soo muy tuule sax mën nañu faa jaare dàq élection yi yéen kaay gi dalee ko mu njëkk ma mu xëy di ñu xibaara nan ñu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou daan nay sifflé li nga xam ne mooy la fin Serigne bi jël na sifflé gi sifflé na nag ñu daal di fin dakkal lépp loo xam ne jëm na ci wàllum activité politique ci dëkk bu sell bi di bi li mu bëgg maanaam politique daal di quitté Touba yéen kaay gi di wal fajiri xëy duñu xibaara naan ñu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou génne na lu toll si juróomi million daal di koy jàppale ñi nga xam ne ñooy waa guru wal fajiri seeti woon nañu ko wax nañu ko seeni jafe-jafe Serigne bi nee na dina ko lijjanti yéen kaay gi di réew mi ko di jaay ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Thiam bu PDS nee na yàggatul dara Karim Wade dina ñëw yéen kaay gi di wal fajiri xëy duñu xibaara naan ñu ñi nga xam ne ñuy waa ñoom nag wax nañu nee nañu manifestation yi nga xam ne moo amoon ci réew mi li ñu ci ñàkk ci koppar ko xayma tollu na ci fukk ak juróom ci milliards maanaam 15 quinze milliards la waa Auchan ñàkk lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci Auchan yoo xam ne dañu ko yàq lu toll si ñaari junne yu fekk ñetti téeméer ci emploi yoo xam ne yóbbu nañu leen chômage technique nee nañu leen toog leen seen kër yéen kay gi di Vox Populi xëy xibaar nan ñu parti bi di Pastef ñoom nag daal dinañuy weddi information yi nga xam ne ñeen nañu ñu ngi ko doon wax ndax dafa am ñoo xam ne ñoo ngi doon wax lu jëm ci wàllu médiation waa Pastef nee nañu kenn koo xam ne ma ngi séq ak yow wàllu médiation lu jëm ci wàllum yónni ndaw ca Macky Sall loole tamit waa nee nañu ñooñu amuñu kenn koo xam ne yónni nañu ko ngir muy waxtaan ak nguur gee lu jëm ci wàllum exfiltration bi nga xam ne moom la ñu doon wax ne Ousmane Sonko dañu ko génne këram loolee tamit dara amu ci lu jëm ci wàllum Ousmane Sonko mi ñu doon wax ne barricade bi ñu ko defoon dindi nañu ko loole waa Pastef nee nañu du dëgg ba léegi tey la ñu gën a barricade Ousmane Sonko yéene kaay gi di réew mi ko di jenxëy duñu xibaar naan ñu manifestation yi nga xam ne moo fi amoon fan yi ñu génn lu toll ci 79 guinéen yoo xam ne expulsé nañ leen ndax ci biir manifestation bi journal bi nee na dafa am lu toll ci juróom fukk ak juróom ci doomu réewum Guinée yoo xam ne ñoo ngi woon ci biir manifestation bi ginnaaw bi ñu leen tegee loxo dañu leen a génn réew mi yéene kaay gi la peuple xëy duñu xibaar naan ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko téléphone yi nga xam ne teg nañu ko loxo journal bi nee na am na benn maire ak benn directeur général bu nekk ci département bu Tivaouane ñoo xam ne ñoo ngi leen siy tudd ne ñoom ak Ousmane Sonko doon nañu jëflante yéene kaay gi di enquête ñu xëy fekk fa na Macky Sall na def attention Macky Sall na def doucement waaye nag su moytuwulee ci nërmelu la jëm waxoon naa ko fi Abdoulaye Wade mu may soobantal ba moytuwulee li koy daal mooy gën a doy waar yéen i kaay gi di Vox Populi Serigne Moustapha Sy daat nay wax ne Abdoulaye Wade lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi waxoon naa ko mu teg ko ci suufa waaye nag gëmuma woona ba mu demee ci élection dañu ko làppo te Macky Sall mi soo moytuwulee lu ko raw mooy am yéen i kaay gi di Les Échos Serigne Moustapha Sy daat nay jaajëfal bu baax a baax Ousmane Sonko ba pare daal di dànkaafu Macky Sall nee na Ousmane Sonko ku dëggu la ku am jom la te naa ko lool li am ba des nag mooy Macky Sall ci boppam moo war a def doucement wala li nga xam ne moo fi xewoon lu ko raw mën naa amaat ci réew change bi nga xam ne nag am nañu ko ba léegi man dugguma ci wàllu manifestation yi maanaam dugguma ci mbir mi Ousmane Sonko jamono ji injustice la ñu koy teg loolee moo tax ay militan ñoom jamono ji dañuy défendre yéen kay gi di leen foo xëy duñu xibaar na ñu Serigne Moussa Fass jamono ji nag dafa mel ni moom ànd na ci wàllum gatsa gatsa militant boo xam ne bu dëggu la maanaam bu gisee ne ab leader ñoo ngi koy teg injustice dafa war a taxaw te loolee moo am ci réew mi ay la ñu tooñ ñuy fayu di reposé waaye nag mbir mi ba léegi ñun duggaguñu ci yéen gi di direct news xëy dañu xibaar